billahi min asheytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammadin wa waa Def Gis TV ñoo ñëwoon seet ci kilifa gu mag kilifa gi nga xamante ne maanaam dafa jóge sa saalum ñu koy wax sëriñ Ngobé Seck saalum saalum piir jamono yi nag mi ngi ndakaaru di yëngatu si wàllu faj pajum cosaan pajum cosaan wàllu xetum garab yi nan la ci yëngu ñu tàmbale ko laaj ci bi nga xamante ne mooy seet balaa loolu ñu bàyyi ko mu nuyoo mu nuyoo ñu xam kan mooy Serigne Ngobe Seck bisimilah. alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi diin iyyaka a wa iyyaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqim siraatal laziina an'amta alayhim wasalaatu wasalaamu ala seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal di nuyu képp ko xam ne yaa ngi siifu rek ñu ngi lay siyaare moo xam si biir réew bitim réew di nuyu waa def gis TV yëpp nga xam ne ñoo déplacé wu ñëw fii ngir bëgg ñu waxtaanee xam-xam lépp lu waaju si xam-xam rek su ngeen ko laajee luñ si xam ñu wax leen lu ñu si xamut euh, ñu jéem ko ak gëstuwaat ba xam ko incha allah bisimilah. waaw kay jërëjëf sëñ Ndobe Seck macha allah kàddu yi rafet na nañ jéem a fexe am laaj yi nga xamante ne dinañ la ko laaj waaw ñu ngi la bëggoon laaj laaj bu njëkk wàllu daanaka dafa mel ni da yëngu si wàllu ay seet yooyu bëggoon nañ xam nag wàllu seet bi yow nan ngay seetee ak nu muy demee ci wàllu seet. alhamdulilah waaw daañu yëngatu si seet bu baax a baax euh, di wax ne euh, nit mënta faj jàngoroy nit te xamoo lan mooy jàngoro ja te seet mooy buntu ñaan yàlla nit ki nga xam lan mooy nekk ci yaram bi mm-hmm. nga man koo seppi wala nga mën koo dimbale pour mu yëkkati ko buntu seet nag yàlla may nañu ci ko xam saalum saalum xam ne euh, moom bu la waxee seet seetal naa la bu la ko waxu tim fekk na mu gëstu la bu yàgg mm-hmm. nit bu ñëwee même buñ ko seetalut yàlla dogal na nit ñi gëstul seen bopp même buñ ko ko waxut mm-hmm. may nañu ci ay buntu yaatoo yaatu yoo xam ne euh, dañuy wax ne nit ki bu ñuy woowee téléphone su ko neexee jarul muy coupé su ñu woowee lépp loo xam ne bëgguna koo xam rek su ñu woowee buñ xasee laaj ko noo tudd rek ba mu wax ñu ko lépp lu muy nëbb lu ne dañ ko ko wax. Euh, dem na ba toll foo xam ne sax ku ragal du ñu seetloo maanaam ku bañ a xam ay mbiram yépp du ñu seetloo loolu moom yàlla def na ko euh, donte suñu woy jur léeg-léeg dafa ñuy wax ne. bu leen di wax nit ñi loo xam ne dafa leen di teree nelaw lépp loo xam ne euh, lu jara wax la wax leen ko leneen lu jar ñaan ngeen ñaanal ko yàlla yàlla teggil ko ko euh, xeetu bunt yuñ si am bëri na ku wax seet da nga wax listixaar fanaanoo say mbir ku wax seet da nga wax euh, tomb ramlu ku wax seetim tim da nga wax mbiram kurus yëngal sa kurus am loo wax ñu wax la déele mbiru nit ñi ñun nag xeet yooyu yëpp xam neen ko soo ñu woowee am na baat yoo xam ne buñ ko tuddee lépp lu ne si yow man neen koo wax soo ñu woowee suñ yëngalee su kurus lépp lu ñu bëgg a wax si yow man neen koo wax soo ñu woowee suñ tombee moo xam si kayit moo xam si suuf mën neen laa wax lépp luñ la bëgg a wax xaar nag moom daañ koy def waaye ñu ñu koy defal bëriwul ndax listixaar lu guddi gi gudd gudd par kenn lañ mën a listixaaral euh, moo tax ñu koy def bëriwut luñ koy defal bëriwut waaye yooyu yëpp dajale neen ko te benn bu ne yàlla dimbale nañu ba waxaguñ si nit mu ne gisoo ma mhm. képp kuñ mas a wax rek wax nañu nañu alhamdulilah kon ñu ngi siy sant yàlla di si gërëm sin góor ñu baax ñi nga xam ne ñoo ñu ko jox alhamdulilah. macha allah macha allah léegi nii bu ñu ci wàllu seet maa ngi dégg coow li ci wàllu càngat bëggoon naa nga développé ma ci wàllu càngat bisimilah. alhamdulilah euh, mbiram cangat dafa nekk mbiru saalum yoo xam ne mag ñi bu njëkk nit da daan jógee fii dem xàll ba cangatu ji ñëwaat. te bu ñëwee day sant yàlla xam ne laal na loo xam ne yëg na ko loolu nag la ñuy sin mag ñi dénk ba nga xam ne nit ki lu sa yaram taq-taq buñ la sangee ñetti fan nga yëg ne sa yaram bi oyof na lu sa yaram tëju tëju tëju suñ la sangee ñetti fan nga yëg ne yow kat say buntu ubbeeku na bu dee koo xam ne dafa tëju ba ñi bay coow wàllu ñàkkam wala yu mel noonu buñ la sangee foo mën a jaar li ngay yóotu yëpp danga ko jot ndax bu dee cangatu yëkkatiku yàlla dénk nañu si ay xeeti garab yoo xam ne buñ ko booleeg alquran ju si wax euh, euh, bu ju si war lu ñuy wax aaya bu ñuy wax ilayhi yasadu boobu noonu bu dee nit ki dafa bëgg yëkkatiku si barab man nañ la si defal xeetu càngat goo xam ne foo mën a jaar soo ko laalee da nga sut sa bépp morom waaw lépp looy yootu da nga si jot incha allahu rabbi ndax euh, cangat dafa nekk njëriñ loo xam ne xamul ndaw li sangu di ko réccu te képp koo xam ne yaa ngi xëy di wuti del sangu ndax xamut ku naan sangu naa waaye réccu naa ko xamut te nit bu dee day lëggéey alalam di tasaaroo suñ jokkee man neen la defal xeetu cangat goo xam ne ndax boo demee si àll bi am na xeeti garab yoo xam ne soo fa demee danga gis ne garab yii sin borom dafa def ñoom seen xob danay ruus waaye lu ngelaw ngelaw ñëw xob yi du génn ron garab gi garab yooyu nag suñ la si defalee xeetu cangat yu si war sa alal du tasaaroo sa alal du mosa tasaaroo te fu ni nit ñi lu leen gën a sonal mooy alal ji tasaaroo moo tax xeetu càngat daal ñu ngi siy sant yàlla si béppaanam anam alhamdulilah. macha allah macha allah sëñ Gobe Seck waaw ñuy ñëwaat tamit ndax càngat dafa yéeme ñuy ñëwaat ci bayra bayra tamit bëggoon nañ la ci laaj am loo ñu si wax ci bayra wàllu bayra macha allah. alhamdulilah euh, càngatu bayra moom dafa nekk loo xam ne bunt yu ñu si am yaatu na bëri na te lépp. ñu ngi siy sant yàlla benn bu nekk defal neen ko nit mu sant si yàlla ndax soo demee si alquran euh, mu ngi wax ne afala yéen suróone ilal ibili kayfa xuliqat euh, soo demee si alquran tim ñu ngi naan suy na li naasi beneen bu si topp mag ñi daañ daan defar sangat bu ñuy wax umurul xay si ndax xeetu cangatu bayra la boo xam ne dañuy wax ne ku ko sangoo mën nga raw umurul xay si bu dee bayra jigéen la ndax euh, nit ñi fu ne lu leen gën a sonal mooy ñàkk bayra da di def li la war waaye xoromu nit ñi nga dul am loo def lu mu baax baax doo am xorom léegi nag bu fekkee ne yàlla dafa la nattu yooyu noonu dal la buñ la defalee xeetu cangatu bayra yu war si alquran ak la ca war a aju mënoo ko laal mukk te e, jamono yu ngi koy laal soo ko commencé balaay man ñetti fan danga nga yëg ne man maa ngi laal xeetu cangat goo xam ne li ma gëjoon a gis sama bopp maa ngi koy gis moo tax cangatu bayra daal gum mën a doon bayra jigéen bayra tubaab bayra mboola lu mu mën a doon bu ñu la sangatee foo mën a jaar li ngay yóotu si wàllu bayra danga ko am ñin nag ñooy jël garante képp ku ñuy defal cangatu bayra ndax bayra dafa nekk mbir moo xam ne léeg-léeg nga defal ko nit sànk ko ndax euh, am bayra te amoo kaaraange musiba la léegi nag ñin yàlla dafa dogal euh, bu buñ lay defal euh, bayra dañ lay defal cangat goo xam ne da lay aar ba bayra bi du la mën a def dara doomu aadama yi lu seen làmmañ bon bon bon danga si mucc incha allahu rabbi ñu ngi siy sant yàlla si côté boobu alhamdulilah. waaw ba tey bayra daa bëri façon xam nga am na bayra njaay bayra ubbeeku bëggoon nga wax ma ci bayra ubbeeku ba pare ndax commerçant yi bëri nañ te ñu ngi xaar tamit bayra njaay lan lañ ci wax bisimilah. alhamdulilah bayra njaay moom damay wax ne duma si jox nit sax naan ko sangooxal dama lay jox rek naan la booy xëy raxasal sa loxo yi dem. ndax euh, alquran dafa ne inna allasina yalloona kitaaballahi wa aqaamoo salaata wa aatoo sakkaata wa anfiqoo mimma rasaqnaahum siran wa xalaaniyatan yarjuuna tijaaratan da nga koy bàyyi indi fa da ngay bàyyi tijaaratan indi fa tey jar def fa tey jar tey jar tey jar ab limam boo paree nga def isaa jaa nasrullahi wal fatu wa raayta naasi yaddaxuluuna fii diinillaahi afwaajan da nga koy bàyyi afwaajan goo def fa afwaajar afwaajar ak la ca aju soo ko defee noonu ba lépp mat ma jox la ko nga di ko xëy di ko raxasoo loolu laal mu jar bu fekkee nit koo xam ne nag ay matérielu oto lay jaay mën naa laa defal loo xam ne baatu dif un si laa koy liggéey su ma ko liggéeyee jox la ak la ca aju oto boo ko xapp du taxaw te da nga koy jaay si njëg gu la neexee loolu yàlla def na ko euh, bu dee xeetu bayra boo xam ne nit ki dafa bëgg xam nga fii si réew mi da nga gis koo xam ne dangay ngay dend ak nit place waaye da gis ne yow mii kii lu muy jaay manoo jaay genn wet ga mbooloo mi dugg si palaasam loolu dama lay defal bayra boo xam ne si afalaa yén su doon laa koy lëggéey moom itam waaye si biit euh, euh, faa yi ak miim yi si lay dugal loo xam ne su ma la ko joxee nga def ko si palaas ba dugg beeg génn bi dana la sonal te dalay jural njëriñ moo tax bayra njaay moom lu luñ si xam yëpp ñi muñ koy wax euh, ndax dañoo dox te dañoo gëstu ñu ngi siy sant yàlla bu baax alhamdulilah. waaw jërëjëf sëriñ bi comme ni nga ko waxee rek. waaw léegi am na feneen fu ñu war a duggaat nag comme waalaam dugg nañ ci wàllu seet wàllu cangat wàllu bayre ubbeekoo càng cangat lépp bayre njaay maa ngi jéem a ñëw si yow ci wàllu noot loo xam ci wàllu noot te dégg naa macha allah yaa ngi ciy yëngu. alhamdulilah noob moom dañuy wax ne maanaam lu waay dëgër dëgër bopp euh, suñ la defalee nopp ki ngay nopp lu lu bopp bi dëgër dëgër suñ ko noobee da nga si jot incha allah. ndax noob dafa nekk loo xam ne duhut da ngay xam turu nit ki rek bindu dugal il foog nga xam turu nit ki xam ay rawxaanam xam tabbi xam boole ko génne ko soog koo dugal fi nga koy dugal noob tim duhut da ngay bind rek bàyyi faw nga nangoo wirda ndax boo demoon na dama bëgg a yëg dara si yàlla sax faaw ñu jox la ab turu yàlla na la doy ko sugar mooy tax sa xol di yëngatu di jublu si yàlla moo tax boo bëgg a yëngal xolu nit pour nit dugg si faaw nga xam loo sigar pour xol yi mën a duggante moo tax da ngay nangoo sigar nangoo sul nangoo sëf nangoo dugal si ay ren ndax am na noob goo xam ne buñ ko liggéeyee si garab gii dund lañ koy def renu garab gi dund am boo xam ne si jànj bii dund am boo xam ne si ron xeer lañ koy def yooyu noonu yëpp nag benn génnut si alquran ak talsam yu si war buñ ko defee loo mën a don da nga da seen diggante dana neex wala ñu lëggéey ko def ko si teen bu të boobu moom diggante bu ñu bëri bëgg a yàq la waaye euh, nopp ñi ngi siy sant yàlla bu baax ndax ñi mu ngi siy wax lu ëpp alhamdulilah. jërëjëf sëriñ Ngobé Seck Saalum Saalum Pire dégg nañ kàddu yi macha allah léegi damaa bëggoon nag ñu ñëw ci li nga xamante ne moom moo lëmba réew mi muy actualité te yaakaar naa actualité politique. daanaka xam nga ci tuut nga bëggoon rek nga am kàddu yoo xamante ni ko si sànni ndax am na lu ñu si jot a dégg ci li nga xamante ne mooy policier bi nga xamante ne moom moo porté plainte Sonko ñu koy wax rek Nappel bëggoon nañ nga xamal ñu si tuuti dem si wàllu si politique bisimilah. alhamdulilah xam nga mbiram politique moom dafa nekk loo xam ne ñun buñ koy wax duñ ko waxee si anamu lu dut euh, anamu ñaanal yàlla Ousmane Sonko yàlla may ko li mu bëgg. ndax guddeeg bëccëg si loolu leen nekk suba ngoon si loolu leen nekk te dafa nekk mbir moo xam ne lu tax ñi di ko def dañoo am si moom yaakaar am si moom gëm-gëm gëstu ay mbiram ba xam ne kii li muy wax doon na loo xam ne bu toogoon si réew mi réew mi deferu te ñin lu defer réew mi moo ñu ñor damay yàgg di wax ne ay baykat leen te seen bay doxatut lu ne lañuy def te réew mi lu sooxee dafa bari Sonko nag yàlla indi ko fi ndaw ñi topp ko ndaw ñi ko topp yépp Sonko neexalu leen ñaari dërëm ñoom ñoo yëkkati seeni dërëm di ko jox Ousmane Sonko te loolu dara waralut ko lu dul xam si moom yaakaar te yaakaar buñ si am si moom dañoo dem ba gis ay jaar-jaaram xam ne kii ay jaar-jaaram lu mat a bàyyi xel la ñi soog di ko def euh, di wax ne ñi nga xam ne ñi ngi topp si gannaawam di jéem a taqal ay deram dañuy sonn ndax nit koo xam ne tey jii nii bu toogee guddeeg bëccëg nit ñaa koy sonal te ñu koy sonal yépp wax dëgg rek la ki wax dëgg ñi lay sonal jarul ngay teggi sa tànk ndax ñu baax ñaa sa gannaaw Sonko rek mooy benn politicien boo xam ne ay boromi xam-xam dañuy dagg seen yitte dem di ko ñaanal yàlla loolu nag li ko waral mooy euh, euh, maanaam li muy wax si réew mi ak jaar-jaar yu mu am si réew mi mu rafet lool ak yéene bu mu am si réew mu rafet moo waral lool waaye lu ñuy dénk ku nga xam ne moo ne ci réew mi mooy di ko xamal ne ko Ousmane Sonko ñu ko topp li leen ñaari dërëm loolu du dara lum si war a def lu du jàngee si xam ne man mii kat am na neneen nu ma war a toogee pour nit ñi xam ñu ma gëm waaye nit ñi bañuñ ko ngir dara dañ koo bañ ngir ne réew mi dafa am lu fi sooxee te waroon na koo mën a defar ndax seen réew mi ñàkkuñ xam neen xam neen luñ dundee waaye dafa nekk ne lu ñuy dundee dañuy jël ñoom yi kese tëdd si ay baadoolo yi di sonn ñun baykat yi di sonn sin mbay mi mënatut a dox dara doxatut boo bu nawet jotee ñu ne la euh, fi nga war a bay yaatu te benn saako engrais boo bëgg ñu ne la nangam loolu rek a tax nit ñi euh, di ko di ko kii léegi nag li li si war mooy euh, sunkoo daal di ko xamal ne ko jàmm rek lay xam fu mu mën a toll jàmm ak salaam lay xam te dana mucc ak lu mën a ñëw si kawam tim jàmm lay mujjee incha allahu rabbi macha allah macha allah sëriñ bi ah dégg nañ Sonko woote ne meeting Mbàkke de bëggoon doo xam nag ci lii nga xamante ne moom la Sonko woote Mbàkke le 10 incha allah ajuma waaw moom daal bëggoon naa nga sànni si ay kàddu. alhamdulilah dem rek ñun ñëpp dañuy dem Sonko daal lu yàlla dogal mu woote ñun ñii di ab saalum saalum dañ ciy jiitu waaw ndax nit ki booy woote lu baax da ngay dem handle si lu baax la bu ñuy woote lu bon nga bañ. woote meeting bi du dara lu dul gën a xamal askan wi kan mooy Sonko ak lan la bëgg ci réew mi loolu la rek te loolu ku koy def lu ne lii jëriñ réew mi bu la sa kenn jiitu képp koo xam ne bëgg nga réew mi avancé kenn warul la siy jiitu te euh, li ma doon wax rek sànq ji nga fu ñu toll nii bu fekkoon ne keneen a woote fee kum joxut paas doo dem waaye fu nit nii tey nit dana joxe ba Saalum dagg paasam ñëw te Sonko du ko xam kon nag li koy waral rek mooy am yaakaar si moom gëm ne dina defar réew mi kon na ñëpp ñëw bu kenn des na ñëpp ñëw wan ko ne ko ñi ngi sa gannaaw guddeeg bëccëg subaa ngoon ñi defar réew mi jàmm am incha allahu rabbi ah jërëjëf jërëjëf kàddu yi am na solo lool kon nag sëñ ba sekk nee na na ñëpp ñëw Mbàkke le 10 Sonko moo woote foofu waaw teel a ñëw ñëw ànd ak ñoom dem dem dem dem si meeting bi kon nag sa kàddu gu mujj laa bëggoon déglu nga xam loo ñuy wax ci sa kàddu gu mujj. alhamdulilah duñ def lii ba noppi te nekkuñ di gërëm ki nga xam ne yàlla moo ñu booleeg moom mu doon koo xam ne xolam yaatu na rafet na mi Cheikh baaram mi nga xam ne moom fuñ toll rek lu war a jëriñ askan wi la ñuy waxal li nga xam ne mooy jëriñ réew mi li nga xam ne la ndaw war a def pour nangoo liggéey loolu rek la ñuy euh, xelal bët bu yàlla sàkk kon nit bu jëlee ab matériel am dem na defal leen kii borom xam-xam la waxtaan leen ak moom kooku soo dikkee te santoo ko dafa mel ni li ngay woote donoo ko kon duñ def lu dut di ko wan ne ko nit ku baax du def lu baax mu réccu ko te lu baax rek lay def te du ko réccu incha allah ndax ñu topp ci gannaawam bëri na euh, ñi koy seetaan bëri na foo dem rek boo tuddee turam ñi xamal ne la ñi ngi koy bàyyi xel waaye ñi koy xamal ne ko euh, askan wi kontaan neen ci yow ndaw ñi tim kontaan neen ci yow ndax xam nga loo xam ne soo ko yoroon tëdd sa néeg doo doo kenn kenn du la déranger te da nga dund bànneex waaye da jël loolu yëpp toog ak askan wi di nekk ak ñoom loolu duñ def lu dul sant la si gërëm la si di wax ne képp koo xam ne xaw nga koo réeree xamal ne nit ku baax la nit ku yéenee ñëpp jàmm la nit ku bëggal nit ñi lu baax la nit ku bëggal réewam lu baax la ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm jëri ngeen jëf ah jërëjëf sëñ Ndobé Seck Saalum Saalum piir ah bi ngi sant xaritam comme ni mu ko waxee wëlbeem di léppam di Serigne Bara Ndiaye borom def gis ñu koy ñaanal gudd fan at wér at wérle di ko ñaanal képp ku nga xamante ne mi ngi suivre def gis TV ñu ngi kontaan si yow di wax nag Serigne Bara nee na nag na ñëpp ñëw si woote bi nga xamante ne moom la Sonko woote fële ca Mbàkke